waajal ñu ngi monter benn spectacle boo xam ne euh, incha allah euh, le 6 lañ ko bëgg njëkk a présenté ci lañ ko bëgg a njëkk wan nit ñi xool seen appréciation parce que ñun sunu liggéey moom ñuy togg rek ñooyam quoi dañuy dañuy dañuy togg rek après ñu jox nit ñi ñoom ñooy apprécier bu ko defee ñu mën a ñu mën ko orienter mën ko internationaliser. Euh, Sabel moom dafa voyagé je crois que waroon na woote pour waaw donc euh, ñu xamee ko noonu man la ak Sabel incha allah avec tous les artistes donc gars yi ñu ci background bi di ko waajal Alpha Momo ak famille bi yëpp donc euh, maa ngi leen di.

bët seen beneen mooy que ne en tant que musicien ma lay laaj yaakaar gis nañu pas mal de temps instant yi ci ay ginnaaw temps dañu doon gis si nga gënoon a fës alors lu waroon absence bi ndax da nga liggéey wala lan mooy lan mooy raison bi exactement ñu ñëw itam ci actualité ñu gis musique sénégalaise bi ñu ngi siy waxtaan pas mal de temps mais on a constaté que par exemple bu ñu xoolee yeneen yeneen musique yi ñuy imposé sur le plan international musique bi dafay xaw a pour mu imposé wu. alors selon toi lan mooy problème bi solution parce que dañuy obligé jël beneen réew di ko incorporer pour mën a imposer alors c'est quoi le problème question bi mooy. waaw ñu gis ni benn moment dañu si seen bi. waaw waaw waaw dara maa ngi fi maa ngi doon liggéey. Euh, sànq bi ma paree pour pour génnaat ah maa maa ngi nii xam nga génnaat naa keneen ak benn produit ñu ngi joué ñu ngi ñu ngi waajal événement ñu ngi ñu ngi waaj a génne yeneen produit yoo xam ne ñu ngi ko doon liggéey parce que à un moment donné dañu yàlla dafa dogal ñu signé deux maisons de disques donc euh, euh, il a fallu que ñu tëju pour liggéey ci yeneen registre léegi bu baax baax comme li nga wax dafay répondre sa deuxième question musique sénégalaise amul musique bu ko gën amul musique bu ko dàq Sénégal artistes yi fi nekk amul artiste bu leen ëpp talent ci moto bi léegi nag il faut benn wala ñaar wala ñeent ñett rëcc ci ñun xam nga yéem a fexe buuxante internationaliser affaire yi may profité aussi ci occasion bi di euh, di di ñaanal suma frère Sidi Diop Zénith bi mu jëm yàlla may ko ci ndaw di wax ni aussi euh, moomoo mi ngi waajal événement wu ma xam naa dina ko annoncer bientôt yàlla na ko ci yàlla may ndam alors euh, buñ ko buuxee rek buñ ko buuxee buñ ko jaaree fi mu war a jaar structurer ko bu baax formaliser ko rek incha allah. dinañu percé ñun ñëpp à l'international donc il suffit que kenn wala ñaar wala ñett percé rek dafay ubbil ñeneen ñëpp euh, ci ci marché musique mondiale donc euh, yéen tamit la presse et la population sénégalaise ma leen di invité ñu gën a booster artistes yi ñu gën leen encourager ñu ñemee songu leur concurrent à l'international parce que artistes sénégalais yu bëri dañuy parfois dañuy ragal dañuy am dañuy am ay xalaat yu bëri parce que euh, sunu population adapté wuñu carrément ci nan lañu war a booster seen artiste mu percé au international donc liggéey bi ñun la ak yéen xamante lu jot yomb incha allah jaa ngeen jëf gars yi kon rendez-vous le 6 juillet incha allah di leen remercier waale bu baax yéen la presse sénégalaise gis nañ ni réew mi bu jagee bu normalé coow li bëri na trop mais c'est grâce à vous donc ma leen di ni que j'ai beaucoup de respect pour vous na yàlla barkeel seen liggéey di leen remercier waat ci seen taxawaay Diagne Ah oui. ñu gis Nigériens yi ñoom dañoo gëm seen bopp ba tey ñu ngi leen di focus ci ñu déglu li nga xam ne moom mooy Maman Ndiaye Fass Soumane mu def benn interview ce matin di wax ni euh, day day am xol bu tàng bu gisee sénégalais yi di toppaloo nigériens yi yow pour yow tey si sa gis-gis est ñun sénégalais mën nañ jël suñu musique boobu propulsé ko mu nekk da nga xam ne dañ koy dañ koy sénégaliser ba mu nekk à l'international que ñuy recopier li xam ne moom mooy musique nigérienne pour man ñun dañ war a concurrence sax mais pas di leen copier ba bëgg ndox ñoom lan la gisee. oui Nigériens yi j'ai beaucoup de respect pour eux ndax liggéey bu rafet bi ñuy def ku ne xam na ni tamit dafa am lu ma bokk ak ñoom muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mais ñoo ñoo leen gën dañoo nangu à un moment donné ay at ci ginnaaw ñu booloo les experts de leur musique booloo liggéey d'accord ci benn benn benn registre te lii dañ koy dañ koy fexe mu percer à l'international booster seeni artistes loolu ñun ñun cohésion boobu amaguñ ko parce que Sénégal xam nga gars yi yëpp dañu indépendant donc ku ne day bëgg a de son côté mais euh, bés bu ñu boolewee ñu liggéey suñu tournure yi ku dem ci euh, ci ci tournure culture lébu wala alpulaar wala mandeng wala ah wala séeréer wala bu mu mën doon lu nice jóge fa c'est vrai man je suis pas d'accord que ñuy copier parce que booy copie da ngay ku la ëppale ñun ñoo leen ëppale foofu mais bés bu ñu gëmee sunu bopp rek bu ñu defaree yàlla mën nañu may ñu leen may xam naa nag liggéey boobu du ci at bii du ci at yii mais ko waxtaanee ñun ñëpp rek liggéey ko incha allah musique dina mën a dina mën a sori ki nag benn. benn femme la quoi benn traître la quoi boo xam ne daf ma abandonné quoi ah gaa yaa ngi nii presse baa ngi nii gaa yi ñu ngi lay dégg ñëpp ngi lay fay gaa yi gaa yi yëpp a ngi lay ziar. ñu ngi ñëw te incha allah rabbi ñu ngi waajal bés bi bu baax a baax a baax a baax bokk na sax ci li tax ñu déplacé ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah waa presse bi waa presse Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen a ngi def liggéey bu nice donc di leen wax ne gars yi dañu ko wàcc incha allah wala ñu ci jàmm ak salaam ñu dem Grand Théâtre tey xam naa ne sama sama sama bis bi xam naa wéet na tey mais nag maa ngi ci liggéey bi. man kay yàgg naa wéet. waaw. waaw mu ne man yàgg naa wéet de toute façon da <laughs> nga ci. ñu ngi ci cappaandaw gi xam nga gars yi kon su su su xaayee rek ñor na ah waaye ci kon rendez-vous le 6 juillet da ngeen jëf